alhamdulillahi rabbil alamin mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare baax te di leen balaaq baax a baax tey sant suñu borom bu baax a baax ci tawfiix ji mu ñu defal ci jotaay bi ak bërëb bu tedd bi fii ñu dajee muy bërëb bu am solo ci talibé yi muy pàkk bu tedd bi di daaree kaamil ci jumaa ji tedd ji ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant suñu borom ci tawféex ji di sant sëñ Abdou Lahad baax ñu bëgg a leeral tuuti rek bala ñu dugg ci waxtaanu jotaay bi li ko sabab ak li ko waral daayira Xidmatul Xadim ba sëti Cheikh Abdou Lahad yi ñoo fi woote woon guddi gii dundal ko fi ngir waajalee ko màggal bi barkeeloo ko ci liggéey bi ngir santee ko Cheikh Abdou Lahad ci yëg-yëg bu ñu am ci seen digg ak moom ak tawféex jum leen tawféexale ak ndimbal loo xam ne ndimbalee na leen ko tam jomb leen moo waral ñu di ko sant jotaay bi nag ñu ngi sant taalibe yi nga xam ne teewee nañ ko yëpp yéen a ngi dégg xasida yi macha allah mbokki taalibe yi ñëw di ko dundal léegi nag Serigne Abou moom Cheikh Abdou Lahad mi ngi fi woon ànd ko ak ñun ak Serigne Cheikh Naam moom Cheikh Abdou Lahad ak suñuy waajur soxna Mayem Cheikh Abdou Lahad ak soxna Ndeyem Cheikh Abdou Lahad ak soxna Astu Njaxat soxna Njaxat Daba moom Cheikh Abdou Lahad ak soxna Astu moom Serigne Abdoulahi borom dër bi ak njaboot gi ñu ko àndaloon lépp ànd fi ñëw ci bis bii rek dundal ko ngir di ci sàkku taw feexee Cheikh Abdou Lahad ñu bëggoon rek sëñ Hamsatu Jaxate ñuy toog ku ne xam ko bu baax a baax ci liggéey bi mu liggéeyal Sëñ Tuubaa ci fànn yëpp ci waxtaan te bu ñu nee sëñ Hamsatu Jaxate mu toog fii di wax ci xaside yi di wax ci Sëñ Abdou Lahad de dana ko wàcc ndax ko ne xam na ne suñu maam sëñ Mouhamadou Xayri mi waajuram mook Cheikh Abdou Lahad ñoo bokk lépp kon bu bu ñëwee fii di waxtaan ci loolu kat. ak cant la ak tawfeex la loolu moo ñu bëgg rek mu am ay tuuti kàddu rek yoo xam ne da koy indi ci lii nga xam ne si nii ñu ngi koy def di ko defal Cheikh Abdou Lahad ci xasida ak it loo xam ne dañu koy dolli ci ci Cheikh Abdou Lahad ba ñun ñii di ay di ci góorgóorlu di ci nab nabi di ci sàkku bànnee xaman këram mu doon yóbbul boo xam ne si ne lu ñuy dolli ndimbal la kon sëriñ Hamsatu ñu ngi lay siyaare bu baax a baax tey bég ci jotaay beeg teewaay gi xam naa di sàkku ak ak dolli rek ci suñu dugg lii nga xam ne si ñu ngi koy def di ko defal si Cheikh Abdou Lahad تجد أنك تجد أنك تجد أنك تجد أنك تجد أنك تجد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مركب شيخ عبد الهات خير منسلين وقى بحسبلة خير منسلين حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل مركب شيخ عبد الهات السلام عليكم mbokk yi ñoo leen nuyu bu baax di leen siyaar sëriñ Seexuna ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam di la siyaar di sant bu baax itam ak nuyu mi suñu wet hmm, di yëkkati kàddu yi gàtt rek xam naa ni ko waxee day lu mënta ñàkk rek xëy na ñu du ko def waaye bis bi moom daanaka jërëjëf ñu ciy wax dara ndax firi na boppam waaye yow it ñu ngi lay ci ñaanal bu baax itam ndax gis nañ taxawaay biñ ci taxaw ak euh, xeeti yaatal yiñ ci yaatal ñu la ci ñaanal nga am ci tawfiq sëriñ bu baax baax ndax yaatal nga ko bu baax baax ci liggéey bi tey pësseef nga ci doxi ba yu bare bari feeñ na ci yoo xam ne daa nekkoon seen cër xam naa moo tax rek suñu ëpp laxa dencoon ko ba ba na ni mu jaarale ko ci yéen mu mel ne tey ñu ci pàkk bu sell bu tedd boo xam ne buñ ci genn won Touba dara du ci dess muy fi ci daaree Kamil ci jumaay Serigne Touba ji nga xamne moy mooy Touba suñu jambar ji nga xamne itam mo fi nek te buñ ko talé sax bakoy defal guddi ak yeneen guddi yi ci dess yépp ci yoonu murit war nañ ko ci sant bu baax ndax mom moy ki nga xamne mo woné wane yoon jaar ba lolu mëna am si ñuy wax ni daanaka day léppam day sëriñ bi buñ ne léppam day sëriñ bi nag day mel ne dadul yenn maanaa ci waxin yi dadul am xorom ndax kuñ ne doomi Sëriñ Tuubaa la waaye bu ñu waxee loolu mooy day mel ne liggéey bi Sëriñ Tuubaa doon liggéey day mel ne moom ci boppam Sëriñ Abdul Ahad dañuy firndeel lu bare bare bare bare bari ba tax lépp luñ ko defal rek ci lu baax yelloo na ko lépp luñ ko defal ci lu baax itam lu luñ koy luñ koy faye bor la wala luñ koy jéem a faye la waaye fekkoon na mu defal ñu ko ba noppi ndax tal gañ am ba di ko def moom ci moom la jaare damay wax ne génération suñuy bàyyi ak suñuy mag suñuy doom ak suñuy rakk yëpp mën nañ ne ci ci ci ci fondation Sëñ Abdou Lahad ci lañ ci lañ xamee Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Lahad mooy kii xam xamle sëriñ bi ni ñu war a jëriñoo ci moom ak ni ñu ko war a liggéeyale ak kan mooy Sëñ Tuubaa ak ni ñu ko war a jàppee ndax cërub doomi Sëñ Tuubaa dafa doy sëkk sëkk sëkk sëkk dafa bu ñu am na fu muy yem ci martaba am na fu muy yem foofu ñu ne doomu suñ Tuubaa foofu la yem waaye mu ñëw wàcc ba tolloog ñun fab ndig fab ak kaalaam takk ko ci ndiggam wane ne Sëriñ Tuubaa ku ñu war a liggéeyal la Sëriñ Tuubaa ku ñu gëm la suñ Tuubaa ku ñu yaakaar la suñ Tuubaa kuy faj aajo la Sëriñ Tuubaa ku ñu topp la Sëriñ Tuubaa ku ñu bàyyee sa bopp la moom dañoo wan loolu ci ay jukkoom ay doxinam ay ay ay ay ay ay mbiram yëpp yëkkateem dalam toogam jógam waxam ndijanti mbiram lépp du ko joyal ci seigne touba ni seigne touba joxe yonente bi sallallahu alaihi wasallam bopam nan la seigne seigne abdullah jilon bopam jox ko yonente jox ko seigne touba ba taxna na moo taxit Sëñ ko fi mu nek nga xamné lim liggéeyal seigne touba ci alquran na xam nga né bi mi defar daaree kamil ji wax nañ né dafa am bis bo xamné dafa tëdd ba guddi muy xalaat téré bobu nga xamné ne bi da ko yittewoo woon ba maam Thierno du ko ko wudlo nga xam ne fu ne war nañ ko fa téere bi fu ne war nañ ko fa ba maam maam Thierno daa mujj yónni yónni yónni Égypte Égypte lañ mujj dem wuti wuti fa téere ba doo koo am sëñ Abdou Lahad tëdd ba yàgg mu ne ñokk jóg dégg naa daa daa daa di woolu sëñ Modou Mamoun jox na ko dégg naa lu jege juróomi téeméeri million wala lu ko lu ko ëpp ne ko mbooleem téere bu du téere junni téere boo xam ne junni defaru ko rek bu mu a doon nañ ma ko wutal indil ma ko fii ndax Sëñ Tuubaa lépp da ko war a fekk si moom lépp ba téere boobee def mu fekkoon moo koy wuti loolu la wax ma ne daa di daa defar lu kii nga xam ne conteneur ba ci njëkk ñëw dégg naa daa wóolu suñu seel ak sëriñ soxnaay ak lenn ci ay mat daal ko ubbi won won leen ko ne leen téere yi day maa ko fi indi dama moo bëgg a defal suñu Tuubaa daari kamil joo xam ne fa bëggal té bëgg a dugal téere yi daal leen li tax ma indi ko nag sama xel daa dem ca téere ba mu yónni woon maam Cerno nga xam ne dañoo mujj dem Égypte wëri ko fa doog ko am ma xam ne suñ Tuubaa lépp da ko war a fekk si moo tax mu wut téere yii daal na siy bi mi nga xam ne yàlla dalaa dalaa dalaa nattoo ngay ab liirkat nag téere yaa ngoog seen téere baaya mu mu wutal ko seen baay defal ko nga xam loolu na ci la sabab daare kamil ji kon bu liggéeyee la suñ Tuubaa loolu ba suñ Tuubaa indi ko fii ci biir daare kamil kon demel ne moom suñ Tuubaa wàccoon ak suñ Tuubaa waaye suñ Tuubaa it wàccoon moom guddi gi nga xam ne moom lañ koy defal itam muy guddi xasida nga xamne dañ ci jublu wajal wajal lay wajal waajal bisam bi ñu jub tay ñaan mu jëm kanam itam na ni ñu ko wajal ya, yaakar na neex nako lool ni ñaanal Serigne Sidi mom Cheikh Abdoulaye lahad mu yàgg fi lool and ak njabootu cheikh Abdoulaye lahad yépp ñu yàgg fi lool ta yàgg jité jotaay bi ci suñu tuba mo leen ñu ngi jang ci ay xasida lepp suñu tuba nang ko def ko addi cheikh Abdoulaye lahad yeen ñi nga xamne yeen ay sëtam ta jité daayira bi itam mbolam ko ci daayira bi ak télé bi bo xamne itam ak xirtem bokk na manam duggal nako ci daayira bi képp ku sopp Serigne Abdou Lahad nga bëgg ko lépp dugg nga ci biir ñaan googu euh xasida nak buñ buñ ko dé téralé Serigne Abdou jox nañ ko lu mu bëgg jox nañ ko lu mu xam jox nañ ko lu mu yàgg lu mu yàgg lu mu yàgg lu mu euh liggéeyal na wax nañ ne bu ma saana xey bala ndek bu fekkee daana ci jaar liñuy wax liñuy wax ndek manam bala naan gox café dana ndékkee junniy beuy wax nañ ne doon mom la daan xey junniy beuy mom la daan xey jang ko lu ëpp sax ñett ju lopp ju ni bëgg sax lañ wax mo daan ko daan ko jang do do ko wax ak kumuy waxal euh waye bokk na ci itam teral buñ ko teral ci xassida yi mu neex ko lool moy señ tuba señ tuba ko ñëk teral ci xassida ndax ko nga xam na na at mi señ abdul hat feñe señ tuba wutal nako ak xassida moy euh, euh, euh, sahur ramadan balsasin ah, safur la euh xama balsasin Sëñ Tuubaa am na xasida goo xam ne xaaral bal si la tudd muy at mi si si sëñ bi gane àdduna weer wi sëñ bi gane àdduna am na xasida gu sëñ bi wutal muy sahru ramadaana bal sasin nga xam ne moom la ko wutal am na beneen boo xam ne itam sawaal ko tuddee sawaalu bam sasin ba sawaalu bal bal sasin xasida ak sawaalu bal sasin xasida googu am na ba ci guddi gi sëñ bi sëñ bi gane sax. am na gu gu xasida goo xam ne sëñ bi ko tuddee laylata barsasin nga xam ne bi sëñ bi defee xasida gi dañ xëyee la sëñ Abdou Lahad ci guddi googu la sëñ Abdou Lahad gën a àdduna kon day mel ne bu ñu ko defalee guddi xasida di ko ci di ci taataan ay ay ay ay ay dàkk ak bëggam jàpp nañ lool ne taje nañ ci ak bëggam bayit wu nekk araf wu nekk ñu ngi ñaan suñu borom lam defaloon suñ tubaa ne euh, suñ tubaa ci xasida yi ba mu ne isaa katabtu aw xaratu arfa xustu mu nan too doxu saaka arfa yàlla na ko defal ci guddi gi sëñ Abdou Lahad xaraf fu nekk fekk ko fam mu nekk ñu mu ful ko ay milliards yu sotti ko ci kawam ndax buñ dee ay gor buñ dee ay jullit ay gor te ay murit te muy dëgg ci ñun war nañu delloo njukkal si ñëpp hat képp ku képp ko xam da nga bokk ci gi yow yeewoo Tuuba war nga xam ne si ñëpp bàyyi la xel te boobu mu lay bàyyi xel boobu juddoo ko kon suñ tal gii ñu am ak suñ laxasaay yi ñu takk ak suñ suñ suñ baax baax lu gii ñuy def di takk yi maxtu di di kennal sering bi di ko bëgg di ko xeeñ mbiram lepp Sëriñ Abdou Lahad ñu ko jangalon ci mom lañ ko nàmbatal ci mom moo ñu ci nàmbatal ndax mo ci nàmbatal suñu bay ndax xeeti taxuran yi fi amoon ak barab naan sàngara yeeg yi daan taxuran yëpp Sëriñ Abdou Lahad da jël ko barabi barabi waxtane suñu tuba ak naan kafe ak barabi jang khasida nga xamni guddi yi ko indi kon buñu defale Sëriñ Abdou li defal nañ ko lu bëgg te japp nañ lool ne lim ko lim ko defal Serigne Touba bég na ci yàlla bég na ci yonent bi bég na ci kon ñi ngi ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàgg fi lool Cheikh Sidil Mokhtar mi itam moom Cheikh Abdou Lahad moom itam fi lol ak njabootu Cheikh Abdou Lahad ñu yàgg koo def yàgg koo def ndax bari waa na lu ñuy kat euh, xëy na dara dugg ca am lu ca dugg loo xam ne xëy na taxu taxu taxut woon ñu ñu jóg maanaam li nga bëgg wax mooy léeg nit waajal dara la muy waajal am na lu ci dugg loo xam taxut woon loolu jóg waaye mel na ni lii moom dara dugg ci lu lu lu bokkut ak lu ci lu ci wër sa mbokk kon day mel ne sant nañ ci suñ tubaab baax ba ñu ci sëriñ bi boole mboolem taalibe yi fi teew mboolem am soppe yi am di jàmm yëpp li si liñ def si ñëpp laxaat yëg na ko gis na ko itam defaluñ leen ko yéen ñii yéen it leen lañ ñoom itam si seen bopp ngeen koy defal ndax si ñëpp laxaat moom képp ko defal si ñëpp laxaat bopp sa bopp nga defal te wóor nañu ne suñ tubaab gërëm na ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko. kon kep ku ko jëfal ci biir ngërëm lo rek ngay dugg kon ñi ngi ci tafu ci barkem ni ñaan ci barkeem suñu Abdou tay nak ñi ngi leen di bàyyiloo xel ne am ngeen liggey bu reey reey ndax dafa tollu ci jamono jo xam ne fi ma yow mbirum suñu Abdou jot na nak xeyna feñ na nebuut waye nak jot na nak ñu gëna ñu gën ko bayyi xel ma yow discours yi daan def discours yi suñu dan daan def bu bu jamono bu jamono manam tegoo woon ci aw yoon te tamit tamit tamit tañ tañ bàyyi ko xel discours am yi kon nëgë ni fekk na ñu wasaare ko boole ko tomb bi Sëriñ Tuubaa yi di ko jàngale ci école yi nit ñi di ko jàng mut leen xamal seen diine di leen xamal seen seen seen seen njom di leen di nekk loo tax tax ñuy nekk mbañum rus ba am lu ñuy jomba def am lu ñuy ëpp def képp koo xam ne xëy nga nekk ci dëkk bii am looy jomba def ci dëkk bi ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa na la wóor ne war nga ko sant si Abdou Lahad kep kuy bëgg baax té nek ci dëkk bi war nga ko sant ci yëpp laat ndax mo la won yoon wa mas naa ko wax ben jotaay euh mu melni xawna di señ ñam wax way loolu muy dëgg dama wax né euh buru wona señ yëpp laat da nga gis ku tok ci yottu jumaaji fay ab cigarette am dogu a dugg ci jumaaji mba mu tour ab bitéelam naan ko ba tour ko ci kawam dogu a dugg ci jumaaji ndax nit ñi itam bu fekkee naanuñu sàngara tuxuñu Serigne Abdou Lahad tax ndax buñu ko bàyyi won man na rogalan ba aksi ci suñu baye ak suñu mam te su boba li ñeen di fekk ñukoy def ñu japp ne non la ñu torawle ñu ñu giñ waye Serigne Abdou moko moo ñom bam ñoom ba mu set ba set bañ set wicc bo tax ñi biñ dikke fekk leen ñu ñu tegee ca yoon wa Serigne Abdou bëgg ñi nit dañuy toppite ñoom kon lepp lu fi bax mbaa mu tege ci aw yoon ci yoonu mourid wi bu doon bu doon bu doon témèr la japp nañ lool ne juroom ñaar fukki ak juroom ñaar mom te loxol Serigne Abdou la jaare kon yalla nañu yalla gëna fayal Serigne Abdou yàlla nañu yàlla gën a dolli ñu xéew Sëriñ Abdou Lahad jamono jii ñu nekk soxlawaan nañ ay Sëriñ Abdou Lahad soxlawaan nañ si ay Sëriñ Abdou yu bari kon jikko ja nekkoon Sëriñ Abdou Lahad fit wa nekkoon Sëriñ Abdou Lahad njàmbaar ga nekkoon Sëriñ Abdou Lahad tabe ga nekkoon Sëriñ Abdou Lahad yàlla na ko yàlla sotti ci jaam ñi ba tax xeeti coow yi ngay dégg mermeraa yi ngay dégg yëpp suñ borom far ko ci barke Sëriñ fi may waxee yow nii bari na yuy am ci dëkk bi bari na yuy xew yu bari war yoo xam ne bëgg si ñëpp laxat nekkoon jort naa lool ne ku koy def bala nga ko wax da nga ko waaj mbaa nga mbaa nga fomm kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm ngir wax kàddu gi dañoo bett rek waaye guddi gi moom gis ñu ne gisuñu ñu ne am na guddi gu gën a rëy ci ñëpp laxat guddi gu rëy rëy la ci moom ndax durus xasida ak di ko yëkkati ci wetam moom la si ñëpp laxat ma sa bëgg ak di bernde ta ñi ngi tangal kafe yi ñi ko séddale ñu ko séddale ak xéti xéwal yi ñi durus di durus ñi tuddu yalla ñi jang alcorane ñi di jang khasida ñi ko def adee sëñ Abdou kon tay ji japp jot nañ lolu sëñ Abdou amna na ay gan te yegg na ni amna ay gan kon yalla ñu yalla taaf ci barkem te lepp luñ fi def ta ta yalla jëm ci jëm ci mom ci barke khasida yi ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp te jot nañ lolu ne kenn ku nekk bi ngay euh yéen ju reey ngay nga ñëwee moo tax li ngeen fi def kenn ku nekk japp na ne sa bop nga ko defal li ngeen fi defé amna ko amna ñu bari ñu xam japp nañ ni ñoom ngeen ko defal kon li señ tuba ngeen ko defal yonente bi ngeen ko defal yalla ngeen ko defal señ Sidi Cheikh Abdou Lahad ngeen ko defal señ Sidi muxtar ngeen ko defal mbolam ku bëgg lu baax mun ngeen defal li kon yalla sax te jëm te bo liggéey itam ñu gën ko yaatal bu baax baax baax baax yalla ñu bo le defal tawfiq ak xewal ak mucc ci barkeb sëñ Tuubaa alaykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Hamsatu santaate nañu bu baax xool seddati na bu baax xel gën naa dal bu baax ñu ngi lay sant bu baax wax te kàddu yi am solo yi ñu ñaan suñu borom doon laa defal tawfeex te musal la ci ndox yëpp xam naa ne ne ngeen di sàkko yit ngeen gën ñoo ñaanoon bu baax nit ñi di taxaw liggéey bi mboolem ku sotoo ci Sëñ Abdou Lahad rek ak taalibe yeeg wala lépp li may wax daal mooy la nga xam ne si ni waxoon na ko ci ba muy woote daaree kaamil yi dane woon architecte bi koy defar wax na ma ak moom juróom fukki million la ma laaj ci liggéey waaye juróom fukki million yooyu moog dara yem ci man bu ma laajoon ñaar téeméeri million it danaa ko wuti def ko mais sëriñ bi may liggéeyal ne ki may liggéeyal man xam naa ko xam naa ni mu doy waaye ne sama pas-pas ci moom feeg ma di ko yëg lu àdduna am ci man rek da ko këf te su ma ko defee danaa ko nangu loolu muy firnde daa joxoon Sëriñ Tuubaa léppam léppam ba di seelu ko dara dara kon nag ñoo ngi sàkk ñun ñii di nam na bi ci ay mbiram yàlla ngeen ñaanal ñu mu defal ñu tawféex yi noonu suñ lépp ñu jeexal ko ci moom ndax ku ci ne ci ñun de defal nañu loo xam ne moo la jomb am na it lu rëy a loo xam ne si ñi moo la ko defal kon loolu loolu lañ lañ lañ lañ jàpp di ca dox di ca di ca di ko dundal ngir fas yéene lépp rek xolam sedd ci ñun te bu xolam seddee ci ñun rek suñ biir yëpp bég ndax moom waxoon na de man de bala maa mën a am lu ma lu ma gënal ëllëg yow man xëy na damay jàkkaarloog suñ Tuubaa ba xolam sedd ci moom ba noppi te wóor la ñun ñëpp na xolub Sëñ Tuubaa moom sedd na ci moom kon bu taxawee di wax loolu ñun luñ jëf rek dañ koo war a xeeb tay daw si si ba si si dund gépp ñu di ko daw di ko góorgóorlu ci li ko liggéeyal kon na ngeen ñaanal baax liggéey bi lu mu am am solo solo lu mu baax baax na ngeen ñaanal buñ ci gis seen bopp ndax di def lu baax ba nag di ca gis sa bopp dara àdduna jël ko kon na ngeen bu ñu ci gis seen bopp ni ngeen di ñaanal it ba dara bu ñu dara tax a yox yoxee ndax loolu mooy li ci am solo sóobu nañ ci loo xam ne daal dara mënuñu cee tax a dellu ginnaaw loolu mooy li ñu li nga xam si moo nga ñu ngi sant baax liñ ciy dolli nag di sant mboolem foop taalibe bàyyi ko ren ñëw teew fii baa nga amoon yéenee teew te mënoo teew daayira yëpp ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal tawfeexi sëriñ bi ak ndimbalam te xam ne li fi nekk ci ñun li fi nekk ci ñun ci ak cant daal lot nañ ci wax ko waaye daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp liñ ciy dolli nag am na yeneen bis yoo xam ne ñu ngi koy def pour waajalee ko màggal gi ba ci yàlla àndee ajjumay suba ji bu dellu see ci ngoon gi danañ defaat lu mel nii ci kër biir kër Sëriñ Abdou Lahad ci mbaar mi ginnaaw toog sa am lay tàmbali jëm ba ba ginnaaw gee ñu ngi koy yëgal ñëpp te sàkk ñëpp teewaay dana am it waxtaan wuñ fay def Sëriñ Jili Abdou Khadir Samb mu nekk Lamp Fall FM moo koy def lan muy waxtaanee mooy xasida yi ak li nga xam ne suñu sëñ Abdou Lahad liggéey na ko ci ndax liggéey na ci liggéey bu am solo loolu ñu ngi koy yëgal jàngkati alxuraan yi xasida yëpp ak mbokki taalibe ak jullit yëpp di ci sàkku seen ak ñaan di ci sàkku seen teewaay ndaka noonu conférence bi nga xam ne si ñu ngi koy def di ko waajalee màggal ak sëñ Abdou Lahad gi di doon doon le 26 incha allahu rabbi ko ren ñu tuddee ko sëñ maam sëñ Ibrahima Xaadimu Rasul ñu ngi koy yëgal ñëpp di ci sàkku teewaay ci bisu conférence boobu nag bu ñu xëyee ci suba gi danañ fa organiser don de sang ak consultation gratuite loolu nag ñu ngi koy yëgal mbokki ba yëpp di ci sàkku ñu teew ci te xam ne lépp luñ ci def daal suñu Tuubaa moo tax ñu di ko woote moo tax ñu di ko ci def ñu ngi ciy yëgal ñëpp di ci woo ñëpp fi ñuy daaneel nag di sant suñu suñu mag bi sëriñ Abdoul Ahad moom si Cheikh Abi ndax lii moo ko doon coordonné lépp foo xam ne yegg na fa rek moom moo ko doon doxal di ko yeggale ñu ngi koy sant baax di ñaan yàlla yàggal ab taxawaayam te gën koo barkeel te gën koo defal tawfeex baax di ñaanal sëñ Sidi mi sëñ Abdou Lahad mu yàgg fi lool te wér ci barkeb Cheikh Abdou Lahad ak njaboot ak Cheikh Abdou Lahad yëpp ñu ngi sant ñëpp te baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Rasul, Rasul, Rasul, Hakim Resulü Derece Fedi Hakim Resulü Derece Fedi Hakim Resulü Derece Fedi Hakim Resulü Derece Fedi Hakim Resulü Derece Fedi Hakim Resulü Lazarus